salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak jullit yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla din defal jàmm fu mën a nekk. dellu soor nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax yi TV Seydina mu nekk ci xarale gi. ngi nuyu Baye di Dieng Touba 28 mi nam dëkk ko. yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci. Ousmane Sonko faaw ñu dellusiwaat ci ginnaaw bi nga xamee ne mi ngi dugg ci politique ak tey fi mu agsi tey xam ngeen Ousmane Sonko waaye balaa boobu ñu fàttali leen ne Ablaye Sylla candidat deux mille vingt quatre la euh, Mimi Touré candidat la euh, deux mille vingt quatre Birima Mangara candidat la deux mille vingt quatre Aliou Tine nee na nanu parrainaasal jigéen ñi na ngeen dem kon ci Mimi Touré <laughs> wala Anta Babacar Ngom ngeen dem di fexe ñu bokk ci élection yi daal loolu la bëgg dafa bëgg saxal démocratie ci senegal mbokk yi Ousmane songo mii de bi muy dugg ci politique daanaka ñun ñëpp ci suñ kanam la doonut lu yàgg lool ndax gën ngaa yàgg 2014 la nu wax ne ci la tàbbi ci politique te fekk ne lu ko jiitu dafa nekkoon fee ñuy wax impôt domaine di fa liggéey yàlla dogal ay waajuram ak ay mbokkam taxawu ko ba mu jàng ba doon koo xamante ni li ñu mën a tudde cadre la cadre la ci bokk nii saytu réew mi ak doxinam ak eh, di ko réglementé ak fexe ba réew mi koom mi mën a dugg bu baax euh, Ousmane Sonko mi yàlla dogal bi mu liggéeyee ci impôt daanaka quinze ans mu gis système politique bi nii muy doxee moo ne système bi de nii muy doxe baaxul ndax moom xam na xaalis liy jaar ci loxoom ci dugg ci réew mi ci xaalis te gisul ñu de def ci dara wala ñu évaluer ci dara loolu xam naa bokk na ci li ko metti mu tàmbali di raam ndànk-ndànk amul benn parti buñ lay wax ne la ci parti boobu la nekkoon wala mu adhéré woon ca walla déedéet danoo xëy xëy rek gis ko mu tàmbali di def ay bind liifur wax ci pétrole bi nga xam ne am na fi donte xam-xamam am na ñu ko gën a màcc ci kii bi liifur bi mu tuddee ko solution waaye ànd ak loola lépp muy xalaatal réew mi nan la réew mi mën a demee kanam système bi fi nekk ñu jóge fii Sénégal mën a yéwén ku nekk mën a yor sa bopp wala ku nekk mën a dem ak sa bopp mën a bàyyi xale yi di dem ci géej gi ñu arrêté ko xale yi di faatu ci géej gi ak xale yi nga xam ne dañuy embargué ne dañuy génn seenam réew wala soit ay jafe-jafe yu metti di leen dund ci seen réew yooyu mu xalaat ginnaaw bi mu xalaatee nag di wax ne yëf yi da xaalis bi da bu jaaree yoon ak système bi ñii ni doxee ku nekk mën na am loolu waaye waa système bi ne ko lii ngay wax yow mënoo bokk ci ñun ba noppi di wax lii da ngay arrêté wala soit ñu seet nun def ci làmmañu seex Yérim ak Moustapha Jaxate Moustapha Jaxate nee na moo wax Amadou Ba dàqal ki nga xam ne moo di Ousmane songo fi mu nekk ci palaasam euh, ki nga xam ne moo di Macky Sall wax ne Amadou Ba dàqal ci làmmañu seex Yérim dàqal euh, ki nga xam ne moo di euh, Ousmane Sonko nee na ñu daal di nekkoo ko nekkoo ne ko dàq ko du solution li gënoon daal seet fu ñu ko déplacé wala mbir yi ñuy doxal mu màncee bañ a te am accès ba di ci xam Cheikh ci làmmañu Cheikh Yérim Cheikh Yérim ne ñu boole ko Ahmadou Ba ne Ahmadou Ba moo ko wax lii muy wax boo ko dàqutu tamit day gën di wax nee na Amadou Ba daal di koy dàq Macky Sall wax ko mu dàq ko ci làmmiñu Cheikh Yérim ba léegi ànd ak loolu lépp ñu dàq ko koo xamante ni sa bàyyi dalaa faraloon nga dem ci ay concours concours yoo xam ne cent personnes yenn saay ay ñetti nit leen ciy jël ay ñaar nga fexe ba génn nekk njàng mu baax ñu xëy dàq la dàq goo xamante ni sans condition ci ni ko Ousmane Sonko waxee loolu jàpp naa ku nekk na ko wëndeel natt ko ci sa bopp ba xam buñ la ko defoon tey ban réaction ngay ànd ak loole lépp daanaka Ousmane Sonko jàmbatu ko jàmbat bu am solo mel ni yëgu ko ndax li nekk ci moom ci tawxiit ak gëm yàlla mu xam ne rek yàlla euh, am na beneen togg bu bokkutek ak euh, ñalang am na yeneen togg tamit yu bokkut ak yii am na tamit feneen mu gëm yàlla rek wàkkiirlu ci moom ginnaaw bu yàlla dogal noonu mu mujj doon fi ab député bi mu doonee diputé tamit mu xaaj soldam ñetti xaaj lenn li mu jox ko ñu nekk Kaolack lenn li mu jox ko ay Casamance yenn yi mu di ko dund ci boppam ànd ak loola lépp mu nekk nag di xeexal askan wi di wax nangam ak nangam dëgg la gaa yenn yi xañ na ay njuumte am ci yenn saa yi ñu kii ko waaye ànd ak loola lépp muy wax ak nit ñi li gën a jafe nag muy convaincre nit ñi ci ay wax maanaam fexe ba nit ñi li ngay wax bi muy tàmbali amul benn dërëm boo xam ne Ousmane Sonko yorati na ko des ci nit ñi lay dundee bu bëggee def transport bëgg dem fenn nit ñi ñoo koy jox xaalis ndax amul benn xaalis bu mën a signaler nee na sax genn këru ndakaaru dong la ko nit ñi xamee. nit ñi ci jël seen i dërëm ak seeni ñaar dërëm mu ci nekk di ci dem di dem ba ni mujj doon ab député bi mu doonee député yi tamit gis ngeen ne ginnaaw bi ci la tàmbali rek Covid bi ñëw. président Macky Sall recevoir ñëpp bi mu demee waxoon na usmaan songo men moo ci déclaré woon ne xaalis bi nañ ko teg ci ay règlement yu leer li ñuy séddale loolu Moustapha si Lo moo ko njëkk rafet lu wax ne li Ousmane songo wax d'accord naa ci waaye far ngeen dox tuuti ñu wane kawit bi gis ne ay naxambaay la woon la ca lekk ci xaalis lim ci Cour des comptes génneel ci ay nangami xaalis au lieu ñu topp ñooñu wala ñu kii ñu ne déedéet nees tuuti ñu daal di sulli benn dossier boo xamante ni Ousmane songo moo demoon ci xale bu ñuy tuddee aji Rabi Sarr ginnaaw ba coow la bari def na lii deful lii ñu daal di ko indil plainte ci saa Ousmane ne man duma dem du ma dem ndax parce que am naa ndomba kiiraay ñu fexe dem assemblée dindi ndomba googu ngir bëgg koo gàllankoor ndax boo fekk na Idrissa Seck dem fee menam moomu des après léegi ñu daal tàmbali. loolu jëm kaw jëm suuf jëm suba ñu daal di mujj nangu kiyam yóbbu ko sénégalais yi fexe ba deux mille vingt et un ñu génne ko indiwaat ko ci biir askan wi sangaat ko xëñal ko parfum wan leen leen kii nag solal ko ay yére yu weex xam nga yenn saay yi loolu boroom xam-xam yu daa ataxalli lu taxalli da maanaam euh, sangu euh, am nañu sangu day jiitu sol ay yére man song nag ñu génne ko nag sang ko ba mu set soog ko solal ay yére tàmbale nañ moo aji saar suba aji saar nangam ministère yi def ko seeni campagne Abdou Mbow fee euh, nu mu tuddati ministère bi ab du Fafana Karim Fafana fee Farba Ngom fële ensemble nangam ku jigéen ñii di ko tàccoo ñii di ko demee marché lépp Ousmane song Ousmane song nit ñii di gën a bëgg Ousmane Sonko rek ñi naa Ousmane Sonko aji saar aji saar naa nangam ñu gën a bëgg ñu téye ko ci yóbbu ko ci yu nekk mu am ci muy jànkonteel coono yooyu ne suuti ci discours yi mu def ci benn boo xamante ni mën nañ ko jàppe njuumte ci li mu wax ne maam mbay Niang maa ngeeg rapport bi te rapport boobu boroom xam-xam yi dañoo wax ne même su ko Ousmane Sonko yoroon sax mënulut maam Mbaye Niang dara te rapport boobu fu mu ko war a jëlee la ñuy wax beneen bi ci des en tant que ab ministre kenn mënu koo yóbbul pelante wala yi ko maam Mbaye Niang dégg loolu ne comme xeex bi nag te fekk moom jamono yooyu lu nekk soxal na ko Ousmane Sonko Ousmane songo marab Ousmane songo bi ñu seetee ndaw si moom kiyam lan fa fekk nangam lu ne mu waxal koo ko daanaka rek ñu daal di continuer bi ñu demee noonu élection ñëw fii Ousmane Sonko élection député yi mu bëgg a dem bokk ci élection bi pour loole bi mu demee ne day def kan day bëgg bokk ci list bi ñu dem list ba ñu bari tuumaal nañ ci xalifa Sall te tuuma joojit de yàlla ba léegi dàmbooj tuumaal na ci xalifa sàll ki ñuy wax moom Lamine Mouhamadou Lamine Thiam tuumaal na ko ci te tuuma ji nag xaw na yenu maana tuuti daal boo ko doon layal moom daanaka rek <laughs> li nga ci dolli du bari ndax fexe ba candidat te booba eh, gars yi foogu woon nañ ne Ousmane bu doonaatee député dootuñu ko mën a leti dara moo tax ñu ne kon député bi kiiraayam lay doon ñu ne ko doo dem Ousmane Sonko jug def campagne nit ñi di màbb sëñ bi ngelaw li taw bi naaj wi ñépp sëñ bi songo songo songo songo fu mu dem sëñ bi ñii di ko tuddee doom ñii di ko may ay ay soble ñi di ko jox kii lu nekk nit ñi di tuddee doom ñii di kii ñii di jooy ñii di nangam mag ñi fii ñu jëkki-jëkki magi Pastef juddu ñu jëkki-jëkki toogaat tuub yi doomu daara yi mu daab dugg ñii di bind ay kaamil alxuraan di ko jox ñii di bind ay kii di ko jox ñii di tudde ay soxnaam doom ñii di ko tudde doom sëñ bi ci yàlla te loolu ànd ak loolu lépp ñi ngi koy xeexee yow moom mam mbay ñang ñu kii fii maam mbay ñang daal di koy fi def pelant ñu dem ñu àtte ko ne daan nan ko nangam maam mbay ñang loolu dafa tuuti leen ko laaj ci xaalis ak leen ko daan te boobu borom xam-xam yi yëpp nee nañ bi maam mbay ñang defaatee recours te maam Mbaye sax nee nañ xaw ma kan moo def recours waaye loola lépp pour daan yi borom xam-xam yi dañ ne mënoon nanoo yokk xaalis bi mais daan yi kenn waru ko woon a mën a yokk ba ñu ci baare kiyam candidat waaye maa ànd ak loola lépp maam Mbaye ñang di xeex guddi bëccëg loo wax mu ànd ak jabar ji ñëw tribunal sol kii yëf yi nangam yàlla dogal loola lépp jóge fi ba ci xam ngeen ne bi muy dikk lu lu àdduna bépp gisandoo ñu seen ko ñu toj pare-birisu otoom ñëpp di ko gis àdduna bi yëpp ñu filma ko ñu jékki-jékki ngeen seen ko ci luñ ko xëpp mu tëdd ci hôpital ba lu ma toll ci daanaka semaine boo xamante ni nee na luñ ko sa këppoon la moo Ousmane Sonko ànd lépp yàlla di ko faral ñu dem fi élection maire mu mu gañe maire Casamance <laughs> eh, ñu dikkati sëñ bi eh, àtte ko bin ko àttee xale yi jóg fii yàqu yàq yi bari lu nekk xew ñu téye ci moom mille soixante deux ñoo xam ne ba léegi ñuy jàpp jàpp ko ginnaaw bi ñu dem euh, aaye ko tamit fekk na aaye nañ ko lu toll ci juróomi at yoo xam ne wala lu ko ëpp loo xamante ni mënta génn réew mi mënte dem fenn waaye ànd ak loolu lépp élection yu am diaspora bi fexe ñu gañe ko te diaspora bi tamit lu lu jar a teeng lu jar a calcul ndax diaspora bi ñu fa nekk bitim réew. ña fa nekk daanaka ku nekk am nga loo dunde am nga ay bien booy xeexal réew mi wala dara da nga gis situation yi fi nekk te ñoom ñoo ci gën a farlu gën cee sonn ñoo yónnee seen xaalis ñooy farlu ñooy def leen yenn saa yi ñu toog nag Ousmane Sonko fi mu toll ñu man koo xëy dajaleel deux cent nangam million wala trois cent nangam million jox ko ko ne ko seetal moom la jubóog nu mu baaxee rek yow ci sa mbir loolu doon na lu kaabu rëy rëy rëy bu demee ci diaspora bi demul te toujours mi ngi gañe te lii lu jar a gis ngeen ne diaspora bi barki démb la fa Guy Marius dem ñu ne saal ba dafa fees dell ba nit ñi mënunoo dugg dafa mujj taxaw ci balcon yi di nuyoog ñi te loola leen ko xame woon mooy ay daayira yu fa daan am loola lan daan gis ñu dem ba mbooloo moomu bari fa bu ñu demee ba léegi ab politicien dematu fa ku toll ni Guy Marius moom moo fa dem mbooloo ma génn ne ba mujj mënunoo taxaw ci bi iskamaa ki nu téye ñu àndateeg loolu lépp ñu ne léegi tas nañ parti jàpp nañ ko ñu jàpp ko ba noppi ñu ne tas nañ parti ànd ak tas parti bi lépp gaa yi gën a génnati loo waxati ñu songorise songorise yàlla dogal xale yi am benn gëm-gëm boo waxee ñu ne la tas nañ parti yi ci kayit waaye mën nu koo tas ci xol yi fu nit ñi jëmati songo songo na mu naa la songo songo nangam loolu it doonati gi président Macky Sall dem Amérique ñu dem xale yi luyeeti ay oto jël ay kii yoo xamante ni daal di di yuuxoo fu nekk ñu wër ko ak Marème fay di ko yuux mu doon lu garaaw bërki déem boo njaay nag mu déposé ab kiyam listam pour bëgg a bokk ci kii yi ñu dem ñu ne ko dun la jox sa liste fi fiise ñoom it fekk na xam naa ne ñoom it boroomi xel lan yoo xamante ni xel yi nelawut mi ngi doon xalaat fekk na booba Guy Marius joxe na El joxe na euh, Diomaye joxe na euh, waa ji Fall Abbas Fall joxe na ilaa axri ilaa axri ñooñu ñëpp ñu dikk ba fi nu toll nii nga xam ne ñu ngi jàpp ne Sonko du dem élection waaye fi ñu toll jàpp nañ ne kenn kenn jenn doole ak jenn daraja yoo xam mën naa fexe ba gañe élection yi te Sonko bokk ci te Sonko kàddum dugg ci loolu kenn yaakaaru ko même ñoom ñi nga xam ne ñoo yore lépp yor doole ji yor xaalis bi yore lépp même bu nu leeree ne songo demul ak ku ne woteel leen ko kooku jàpp na ni den gañ ànd ak loolu lépp seeni xalaat bokk na ci eh, kii yi dina bari nu mu tuddati ñii dem dana bari du bari dana bari yooyu yëpp pexe nekk ñu ngi koy natt na bari ndax deuxième tour am ñu ñëwaat ñenn ñi naa déedéet nan fexe ba deuxième tour ñu gañe avant deuxième tour yooyu yëpp nag gis nga yàlla programme yi ku ko ci boolewut danga nga xamut yàlla programme yii yëpp ku ne dinaa fekk suba dinaa fekk deux mille vingt quatre na fekk nga diisoog suñu borom ba mu déy la ko waaye bu la ko déyut daanaka diggante nit ku nekk nag li mu war di xalaat mbir mi da ko war a bàyyi ci loxol yàlla ndax di nga fekk suba ku dut fekk suba ku xamul di nga fekk suba ak ginnaaw suba loo programme yéene la waaye wóorut loo programme yéene nga ko programme waaye du pas-pas du du du tegawuti tamit ci tawxiid tegawuti tamit ci gëm yàlla ndax yow